ci yéenekaay yi ci yéenekaay yi El Hadji Ousseynou dal leen ak nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo jamono ji nag yéen kaay xam ne ki nga xam ne ci réewum Sénégal ci taw pétrole yéen bi duñu xam ne a moom kay dafay wedd ne amul benn xaalis boo xam ne daal jox nañ ko ci mu ko ci Frank Timis yéen bi duñu xam ne moom El Hadji Amadou Kassé kay gannaaw ba mu toogee fi nga xam ne moo di TV5 Monde kat yi nga xam ne daal yëkkati moom kay i kaay bi duñu xamal ne kàddu yooyee lam ci jur moo di dafay na dafa a dugal na weddi kàddu yi nga xam ne nag kàddu yi nga xam ne Aliou Sall maanaam ñi nga xam ne daal ñoo nekk ci yeneen parti muy parti bi ci mel ne AFP PDS ak yeneen i ñoom kay la laaj moo di ne mooy mbirum pétrole pétrole mi nga xam ne nag moo am ci réewum Sénégal maanaam sa pabla di laajte xam ne daal ñoo koy jàppal tànk moom lan moo tax nga xam ne nag moo di SDE loo xam ne nag jëm na ci contrat d'affermage bi nga xam ne daal ñoom daal jamono ji ne ñu nga xam ne daal jébbal nañu ko ñi nga xam ne nag ñoo nekk foofee dossier la boo xam ne dossier bu baax la yéen bi duñu xamal ne mbir moomee nag mbir la moo xam ne nag ñi nga xam ne ñoo nekkee foofee daanaka lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu ni mel dañuy xam ne ne mbir la moo xam ne dañu ko war a seet ñu aar lu ñu bokk kuréel googee boo muy tul dana tas ndax kenn ci imaam bi nga xam ne bokkoon na ci moom yéenekaay bi dañu xam ne loolee tax daal mu tekki ndombal tànkam Cheikh Tidiane Dieng kaddu ci l'observateur duñu xamal ne gaa kaddu yi nga xam ne daal imaam bi yëkkati na ko kaddu yooyu kaddu la yoo xam ne demewul noonu ba fekk leen ma ci 24 kaddu xam ne nag Serigne Cheikh Thioro ko jëmale ko ci monsieur le bu Touba di Abdoulaye Ka Serigne Cheikh Thioro Mbacké di song ki nga xam ne nag moom la war a def moo di woote ab conférence de presse ba ñëpp ñëw mu daal di jéggulu waa Touba bu ñu jógee Touba dem Louga wala observateur yéen kaay bi di xamal ne li nga xam ne nag moo xew Louga doy na waar jamono xeesal ba ma nga fa Marie-Wu Léña yéen i kaay dañu xamal ne góor ñi ñoo dàq xeesal ñi nga xam ne nag ñoo di jigéen ñi